mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di faratal di déglu seen émission bii di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak euh, bànneex di daal ki nga xamante ne moom mooy docteur Aboubacry Sadikh Badiane nekk euh, médecin au service des maladies infectieuses fii ci hôpital Fann docteur badian ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM wante laata loolu sant la gërëm la euh, ci nangu bi nangu uyu ci suñu invitation bi lee docteur Badiane dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi nuyu auditeurs yëpp ñuy suivre émission SOS santé man docteur Aboubacar Sidikh Badiane laa tudd nekk médecin fële service des maladies infectieuses de Fann. merci beaucoup docteur Badiane pour cette présentation euh, wax nga ko yaa nekk ci service maladies infectieuses xanaa rek ñu tàmbalee waxtaan bi ci jàngoro a nga xamante ne dañ di duppee ay jàngoro ñu wax ay maladie tropicale négligée dañ koy farataal di dégg docteur Badiane maladie tropicale négligée buñ ko waxee concrètement sénégalais lambda wala askan wi ñu déglu euh, yan jàngoro la ñu mën a jàpp ci façon jàngoro yooyu la waaw xam nga jàngoro yi dañu bëri mhm. euh, y a beaucoup lépp luy maladie infectieuse bëri nay jàngoro parce que ni maladie mu mun nañ suñu xel day dem si palu ngeen xam baax may feebaru sibru mhm. si feebaru infection à bu si mujj rek feebaru covid bi yeneen feebar yu joxe épidémie comme Ebola mais am na feebar yoo xam ne ni ñu am tendance fàtte leen mun comme les maladies tropicales négligées et feebar yu fi nekk la mais comme problème de santé yi dañu bëri trop lu on di le terme négligé parce que dañuy faral di leen fàtte tey feebar yu nekk fii la di loraange te feebar yooyu soo leen gisee ba gis nag mot na trente feebar mais su ñu xoolee feebar yu yu gën a am Sénégal Sénégal en ce qui concerne les maladies tropicales négligées yoo xam ne fii la nekk Sénégal am na si yoo xam ne ñu tuddee les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Mhm. feebar ñu xam la. Mhm. comme feebaru saan maladie tropicale négligée la bokk saan day faral di sonnal xale yi am lu ñu tuddee bilharziose lu si bëri mooy ñuy faral di nekk say dex. Mhm. te suñuy tur ndox ñuy tur ndox lu mel ni lu mel ni deret. seen tur ndox day dañuy tur ndox deret. am na si boo xam ne ñu ngi tuddee filariose lymphatique mm-hmm. boo xam ne su su yàggee si yow day néewil tànk bi wala euh, néewi foo xam ne jurukaay bi la. Mm-hmm. te am na lu koy waxee si si olof sax gis ñoo xam ne seen tànk yi day néewi néew bu yàgg. Mm-hmm. ñu tuddee ko éléphantiasis. seen jurukaay yi néew yi day néewi loolu filariose lymphatique bu yàgg moo koy andi. am na tamit ñu tuddee trachome feebaru bët la. Mm, ak tamit onchocercose feebar boo xam ne si ndox lay nekk ay ay verre la yoo xam ne su yàggee day jàpp bët bi. Mhm. hormis feebar yooyu am na feebar nañu tuddee prise en charge par cas. ils sont nombre de neuf. parce que maladies tropicales négligées quatorze lañu Sénégal. Mhm. cinq yi ñoom dañu tuddee chimiothérapie préventive parce que nañu si ñëw si kanam. Mhm. soo joxe ay garab de manière de masse en masse. cest à nga joxe ay garab. en masse di jox garab yi population yi fu mu gën a bëri mm-hmm. mun nga wàññi feebar lu baax voire même nga éliminer ko mm-hmm. par contre am na yeneen feebar yoo xam ne ay maladies tropicales négligées mais prise en charge par cas yooyu plus souvent bi la mm-hmm. lu si mel ne gaana lèpre lèpre dañuy fàtte ni wàññeeku nu bu baax mais ba léegi am nañu quelques foyers waga ñu tuddee gaal gaal tamit si maladies tropicales négligées la bokk ba léegi muy am surtout si daara yi euh, dégg nga feebar boo xam ne dafa xaw a niroog sibiru waaw. Mhm. te faral joxe épidémie bëri Sénégal parce que chaque année dañu am épidémie am am na euh, am na les maladies d'inoculation yam ay morsure moo koy joxe rage ci la bokk maladie tropicale négligée la. Mhm. envenimation mooy matt jaani morsure de serpent dafa bëri Sénégal envenimation. Mhm. ci la bokk am na feebar yoo xam ne nag presque dañ leen éliminer. à part Missitoum boo xam ne feer ferme bu néewi tànk la. Mhm. am na ferme presque dañ leen éliminer. Mhm. comme bu ñu tuddee vers de Guinée. loolu soo gisee enseigne yi nekk vers Kédougou sud bi xam nañ ko baax. mooy tànk bu néew ak benn sax bu fay génn. Mhm. tànk bi di métti di la tere dem tool di la tere liggéey. am nañu tamit maladie du sommeil. maladie du sommeil fe maladie la mais Sénégal daanaka daf ko éliminer. maladie du sommeil. maladie du sommeil mais au Sénégal ñu dañ ko éliminer. dañ ko éliminer les derniers cas remontent vers les années soixante-dix-neuf ça ne pose plus problème mm. mais il faut ñu gëstuwaat bu am lu ñu tuddee éradication il faut ñu gëstuwaat xool ndax jeex na fi tàkk-tàkk mm-hmm. ñu dem ñu dem def do déposer ñu tuddee certificat d'éradication mm-hmm. mais globalement lii ma ñu tuddee les maladies tropicales négligées mm-hmm. ay feebar yu bëri la mais suñu prend l'exemple du Sénégal a grosso modo va sur les quatorze maladies tropicales négligées au au Sénégal qui sont endémiques mooy fi lañ nekk. waaw mais si gën a fës nag mu ki xam naa rage la gaal morsure de serpent yi. Mhm. feebar yoo xam ne ñu tuddee filariose tànk bi day néew ak sa jurukaay bi fooy juree day néew yi surtout si góor. Mhm. Euh, euh, saan ak feebar xam ne da ngay da ngay saw deret ñu tuddee ko bilharziose lu si bëri bëri lu ñu tuddee tropicale négligée. d'accord euh, Badiane dañuy taxaw rek euh, euh, ci yi nga xamante ne peut-être ñoom la ñu gën a xam mais particulièrement wax nga ko ci sa introduction moom mooy saan saan on a comme l'impression kon su ma la déggee dañ ko xaw a banaliser alors que peut-être jàngoro bu mën a mën na lore comme mun na bañ a lore mais tey bu ñu doon wax gën a xam leen ak askan wi ak jàng jàngoro bi di saan te mu bokk ci maladie tropicale négligée yi on entend parler souvent man damay dégg kii dafa am saan dafa am saan dafa am saan euh, euh, lan lay expliquer concrètement a ah, saan moom lu si bëri bëri déjà ay conditions d'hygiène yu xaaw a jaxarooxee ni waa saan c'est la principale cause parce que c'est une maladie ay parasitose la mm-hmm. hmm? c'est vrai que on on lañ koy dégg lu bëri bëri. waaw mais feebar bu am la surtout si xale yi. Mhm. parce que xale yi dañuy foo des fois dañuy foo suuf si des fois aussi condition d'hygiène ce n'est pas respecté mhm. ah mais feebar loo xam ne mu ngi fii. Mhm. moo tax le plus souvent xale bi dem consulter duñu hésiter déparasiter ko. du hésiter parce que centimètre am nu muy yàggee si xale mun na. andi ko loraange surtout mun na ko andi anémie am na muy gën a graaw graaw saan mun na andi anémie su yàggee mm-hmm. am na nu muy yàggee tamit day tax xale bi tamit du lekk bu baax à la limite sax waaw à la limite sax mais surtout mun na am na andi retentissement daal si développement xale bi ça mm-hmm. possible si c'est très très mm-hmm. retard staturo staturo-pondéral mais feebar bu am la macha allah feebar bu am la bu nekk si dëkk ñu bor si moo tax le plus souvent ñuy faral déjà dans le cadre des MTN on a des campagnes de distribution de médicaments de masse notamment Proxal les autres médi feebar yi chaque année on donne des médicaments mhm. de manière cyclique dans les zones endémiques malheureusement Dakar bokk ci mais Saint-Louis sud du Sénégal Touba ba Tamba dañ joxe ay garab mhm. à la population pour prévenir feebar yi mhm. mooy filariose bi mooy onchocercose bi mooy schistosomiase bi mooy juve elmentage bi te ñu suñ mhm. dox jéego yu bëri mhm. parce que depuis ñu commencé campagne yooyu gis nañu suñ defee enquête feebar bi mu ngi wàññeeku bu baax a baax mhm. si population bi et sont des campagnes de distribution des médicaments de masse qui se fait chaque année pour interrompre chaîne de transmission bi parce que feebar nit moo koy ne si lay nekk jóge si nit dem si beneen nit. Mhm. soo nekkee di traité ñëpp ba kenn amatul feebar bi feebar du mun a jógaat si nit dem si beneen nit. loolu mooy intérêt campagne euh, distribution médicament de masse yi. Mhm. d'autre part aussi saan aussi am na solo aussi. parent yi ñu faral di dépariser seen doom am na solo way mhm. ak insisté tamit si hygiène bi hygiène alimentaire mooy lekk bu sell ndox naan ndox bu sell lekk-lekk bu sell surtout raxas loxo yi raxas loolu yi nga xam ne lavage des mains mm-hmm. su xale su jógee fooy bu ñëw su jógee école bu ñëw balaa muy lekk aussi su jógee si wanag d'accord justement docteur damay damay damay taxaw foofu wax nga ko euh, hygiène euh, bokk na ci peut-être li nga xamante ne mën na xeex lépp lu jëm ci jàngoro bi di saam euh, saan autant pour moi mais ñëw rek ci li nga xamante ne moom mooy façon xale yi lekk yi ngi leen di jox wax nga ko war nañu saytu lépp lu ñu lekk mais yaa ngi ci millier bi ci ci secteur médecine bi nga nekk boo xoolee léegi xale yi on a tendance à les donner peut-être ay ay ay bonbons peut-être moo xam day sucré moo xam day salé euh, apparemment pour ñu lekk lu tàng aussi exceptionnellement la donc boo gisee seen saak yi le plus souvent ay ay ay ay produits yu xaw a yu yu naan c'est pour les enfants la tey jii boo doon sensibiliser les sensibiliser les parents par exemple par rapport ak li ñuy jox tout temps yi parce que euh, on le voit au niveau des boutiques ak supérettes yi chips yi ak bombo yi apparemment xale yi loolu rek lañ leen di gaver joxatuñ leen lu tàng tey jii boo doon wax lu gën a yaatu ci peut-être peut-être système d'alimentation bi ñuy jagleel les tout petits en tout cas mon message bu may lancé mooy d'abord xamal lay jox sa doom en résumé xale da nga xam loo koy jox mooy ba produit bay jox sa doom il faut nga xam composition bi il faut nga xam est-ce que am na apport si si si si nutrition. valeur nutritive valeur nutritive est-ce que am na apport nutritif. Mhm. loolu moo am solo ñaareel mooy que xale tamit lekk mu dafa war a équilibré c'est-à-dire que euh, euh, baax na surtout ñu bàyyi si xel parce que de plus en plus ñu gis ni maladie cardiovasculaire yi ñu ngi bëri hmm? donc déjà si xale la ñu war a commencer di leen sensibiliser. Mhm. que lekk dafa war a équilibré. Mhm. waaw léegi produit yooyu xaw ma seen composition mais ce qui est important. tout excès est nuisible. Mhm. manger trop sucré c'est pas bon manger trop salé c'est pas bon. manger trop gras c'est pas bon. Mm-hmm. et les enfants doivent bouger. Mm-hmm. xale moom daanaka day bouger sax. Ah, mais léegi avec l'avènement des nouvelles technologies de moins en moins les enfants bougent. Mm-hmm. les enfants sont devant les écrans sont devant les tablettes les télévisions et tout ça. il faut que les enfants am ay activités sportives. mais xale quel soit lem boo koy jox. lu am solo mooy nga xam looy jox sa doom est-ce que am na apport nutritif wala na valeur nutritive mm-hmm. man conseil boobu laay jox parents yi mm-hmm. mais de manière simple pour ne pas indexer des aliments mm-hmm. trop salés trop sucrés trop gras dañ ko éviter e manger bouger comme le disent comme le disent certains certaines campagnes. Mhm. xale yi dañu lekk mais dañu am activité sportive di dépensé wu. Mhm. yenn saa yi aussi nga dégg mag bu la naan man dama am saan euh, fii ça m'empêche des fois damay fattak yooyu noonu. en tout cas lu solo mooy nit moom soo amee ay signes moom davantage va consulter chez le médecin effectivement euh, GEL Menchazi mooy saan yooyu. dañu bëri circuit suñ jugee sa yaram dañuy jaar fa nekk effectivement en ce moment sax mun jaar si dënn bi wala jaar si pot bi moo tax ñu am sensation boobu mais tamit ne ko da nga am sensation bi rek su la neexee tamit mu nga dem déparasité wu waaw mi lu solo moom tamit euh, soo amee ay symptômes nga jege hôpital laal médecin bi na la xool consulter la xam ban feebar nga am. Mhm. mais aussi aussi euh, vers yi dañu am benn cycle boo xam ne dañu jaar si poumon yi aussi sphère oreille wàccaat encore si tube digestif bi de ce passage effectivement mu nga ay sensation de. de luy dox sa baat wala ngay sëkkat guddi sëkkat su bëri loolu tamit mun na ko joxe mm-hmm. mais en de cause il faut aller consulter un médecin mu mm-hmm. mel ni docteur da nga dugg ci signes yi et par rapport à question bu la laaj mais eh, saan d'habitude euh, naka la ñuy xamee ne peut-être xale bi dafa am saan saa ngi dégg dafa am tënd ndiir wala xel mi day tey loolu man sax moo tey saan boo ñu doon wax euh, euh, signes yi nga xamante ne mën nañ ko détecter waaw ah, xam saan dañu bëri façon façon. waaw dañu bëri façon am na am na ascaridiose am na ténia am na y a plusieurs espèces parasitaires mais de manière globale. Mhm. xale bi mun na def réaction allergique mooy day am tëntën di tuddee urtique yaram day xasan des fois mun na ko def jaare mhm. des fois mu ne xale buy sëkkal lu bëri guddi guddi guddi. Mhm. bokkul na ak asma mais des fois mun na ko def tamit wala de fois xale bi wàccu de temps en temps. am na yeneen vers yoo xam ne xale bi day lekk lu bëri day am bulimi. am na yoo xam ne day tere xale bi lekk am yoo xam ne jox ay bulimi mm-hmm. am si yoo xam ne xale bi fu muy cabinet day xasan mm-hmm. waaw mais de manière globale avant ñu ak signes yooyu ñu war parce que sant suñu la nekk am na ante yeneen taux yi mm-hmm. lay commencé di sonal nit ñi il faut ñu am habitude déparasiter xale yi ça veut dire que je me dis que signes war ñu ko xaar il faut ñu am habitude di déparasiter les enfants de manière périodique bu ñu xaar parce que signé c'est pas spécifique lu am solo mais de déparasiter les enfants de manière de manière périodique mm-hmm. euh, déjà euh, boo wax déparasiter de manière périodique mën nañ jàpp lan tous les trois mois tous les six mois si am avec de toute façon avec les avec spécialistes am des fois c'est tous les trois mois tous les six mois des fois par an mm-hmm. en fonction rythme mm-hmm. mais lu solo c'est penser vraiment parce que loolu c'est une prescription médicale. Mm-hmm. c'est vraiment de temps en temps xale bi su demee hôpital. de fait même ici dans la pratique nit yi suñu recevoir xale duñu hésiter déparasiter ko. Mm-hmm. donc il faut ñu changer déparasiter xale yi de manière. Mm-hmm. de manière de manière euh, périodique. surtout aller yóbbu leen de temps en temps si poste de santé yi laaj avis est-ce que je mhm. peux déparasiter mon enfant ou pas. Mhm. en tout cas loolu am na solo. déglu gën nañu xam lekk jàngoro bi di di di di saan am na beneen euh, boo xamante ne nee nga euh, peut-être mu ngi fi mais xam naa ne nit yi eh, taxuñu koo xam loolu parce que xëy na priorité médicale yi moo demee noonu euh, terme scientifique bi nag dafay xaw a dis ci man éléphant passe-moi l'expression éléphant éléphantiasis loolu loolu filariose fatik moo koy joxe. Mhm. filariose lymphatique moo koy joxe ay ay sànla tamit ay vers yu nekk si yaram. Mhm. dañuy obstrué dañuy obstrué dañuy fatt ay vaisseaux yoo xam ne ñu tuddee les vaisseaux lymphatiques si yaram la nekk. Mhm. su leen fàttee na ndox bi di circulé tànk bi day néewi di néewi di néewi. dafay mel ni rétention. lay doon. te faa ngi si tànk yu si rëy am mel ni deru éléphant mu ngi tuddee ko éléphantiasis ñu mhm. gis dañ tànk day rëy peau bi day plissé wu des fois su ko olof xuuxaan la koy waxee mu dëgguma waaw cest à que si jurukaay bi day day day rëy trop waaw mhm. ah, moo la des fois de day ñuur sa dem consulter mhm. loolu yëpp filariose lymphatique moo koy moo koy joxe mais feebar loo xam ne balaa muy àgg foofu yàgg na si xanaa xanaa xanaa dafa amul signe wala. waaw amul silencieux. waaw amul waaw des fois signes yi sont des am benn tànk tout ça. wala des fois nga yor ko si yow sax mu manifesté wu nga nga ko mais après li ñu gis conséquence ba day accumulé si vaisseau dem ba obstruer leen. Mhm. te tànk bi day néewi wala testicule yi néew yeneen yoo xam ne. Mhm. dans ce cas nga dem chirurgien ñu jéem kii mais moo tax. moo tax sànq may delluwaat si importance distribution médicament de masse parce que loolu noonu suñ joxee garab yi lay tax di wàññi prévalence filariose bi si deret bi mhm. de ce fait que koy gën a wàññi peut-être que dans des années à venir on va avoir moins de cas de feebar yi mel ni tuddee wala jurukaay bi di di néew mhm. parce que day nekk si yow di mutuer pendant des années mhm. avant ñu foofu avec ces campagnes de médication de de de distribution de médicaments de masse mhm. day wàññi saani si deret bi que de manière progressive finalement dañ éliminer dans la population générale ah, xanaa diagnostic waaw waaw xam ça dépend rek xam nga moom euh, signes yi des fois discret des fois tànk bu bu xaw a inflammé la des fois aussi mun na mun na mun na mun na silencieux mm-hmm. des fois aussi comme c'est pas très très bruyant aussi malade bi du sawar consulter ainsi de suite waaw mm-hmm. ah, mais xam loo gis rek nañu xool stratégie bu gën pour arrêter feebar bi mm-hmm. actuellement stratégie bu gën mais vraiment prévention bi distribution médicament de masse yu wax. Ah, loolu si loolu ñu war a parce que si insister on va régler le problème. Ah, parce que actuellement il a, il y a beaucoup de praticiens, il y a beaucoup de médecins, il y beaucoup de patients, il beaucoup d'entraves et tout ça. Mm-hmm. Avec ces distributions de médicaments dans la population générale, je crois qu'avec avec cette stratégie on peut régler le problème. d'accord waaw distribution de masse bi docteur wax nga ko euh, c'est plus euh, accentué ci li nga xamante peut-être moom mooy les région wax nga fi ay régions peut-être euh, Saint-Louis Touba entre autres spécifiquement parlant lan moo tax peut-être jàngoro yooyu ñu koy gën a gis peut-être à l'intérieur du du du pays même su dekkente ne am nga Dakar am na Dakar boobu juumee peut-être nga gàgganti ma spécifiquement wax nga ko distribution yi. Casamance yi euh, yenn région yi lañ koy def euh, Dakar c'est pas trop donc je me dis peut-être Dakar tax ko fi bëri lan moo tax euh, jàngoro yooyu ñu leen di gën a gis peut-être à l'intérieur du pays ci lekk bi la ci ndox mi ñu naan la ci environnement bi la qu'est-ce qui explique sax waaw déjà am nga feebaram la déjà dañu def ay cartographie. Mhm. on a ciblé des jones des zones e feebar yoo xam ne am na amoon na fi mais dafa commencé dañ. c'est-à-dire tu prends l'exemple de certaines régions comme la région de Sédhiou. amoon nañ filariose mais après tey campagne on na plus vu parce que après campagne def ay enquête xool ndax population bi am nañu vert bi pas mais après après cinq tours gis nañu population amatul foofu mhm. loolu exemple la boo xam ne war nañu campagne c'est c'est important c'est-à-dire des cartographies d'autre part aussi il y a des su ma jëlee exemple euh, bilharziose ou schistosomiase moo xam ne da ndox le plus souvent zone yi am dex la dex soo xoolee mooy jour bassin du fleuve Sénégal bi wàcc euh, foofu fa am dex dex boo xam ne ndox bi dafa bëriwul bëriwul xorom mm. eau douce la waaw boo xam ne tamit le plus souvent xale yi euh, suñu fay sangu entre mid treize heures la am transmission parce que la boo xam ne température ndox bi c'est entre vingt cinq et et trente degré filariose c'est transmis par des par des par des vecteurs mhm. mais peut-être que si on prend l'exemple du réseau hydrographique mhm. on peut voir comme dans la zone du Sénégal oriental dans le bassin du fleuve mhm. foofu foo gis bu am dex rek bu am dex am eau douce sont des zones qui sont propices par exemple à la à la bilharziose même l'onchocercose c'est lié à l'utilisation de de l'eau globalement c'est c'est ça et le fait que euh, on, on, on fait la cartographie des, des, des, maladies dans des zones. Et avec les campagnes de Manungisni, de plus en plus, le nombre de zones visées diminue, par exemple. Mm -hmm. Et ça, ça montre que ce sont des campagnes qui sont, qui sont très importantes. Il y a parce que chaque année, campagne, dañuy évaluer xool impact campagne bi. Mm-hmm. gis nañu am na zone yoo xam ne c' était euh, trois districts lañ doon traité progressivement dañuy dañuy traité deux wala benn district. Et tout ça, c'est l'effet des, des, campagnes. sont des campagnes qui sont annuelles et en fonction de la prévalence, c'est un passage, deux passages, ainsi de suite. Mm-hmm. Mais juste pour attirer l'attention de la, population de vraiment adhérer à ces campagnes de mm-hmm. distribution des médicaments de masse. Mm -hmm. dire que sont des médicaments qui sont importants, qui sont sûrs et qui aide vraiment dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Mm-hmm. Euh, wax nga euh, pour sensibiliser nit yi et peut-être euh, ñu bàyyi xel ci campagne ci distribution de médicaments yi autant pour moi tey docteur Badiane wax nga ko mu mel ni eh, eh, eh, vaccination wala distribution de médicaments yenn saa yi nit yi dañuy xaw am un tout petit peu xel ñaar ils sont assez réticents bu ma jëlee vaccin bi gis nañ ko fi jaar na fi il a ñu def campagne. campagne de sensibilisation euh, tradipraticiens yi jàpp si fii waa santé jàpp si ñi nga xamante ne ñoom la wax ay ay régulateurs sociaux jàpp si pour gars yi dem vacciner wu tey jii par rapport ak euh, campagne de sensibilisation ak distribution de médicament yooyu est-ce que euh, la population souvent elle est assez réceptive oui mais xam nga bon des fois tamit des fois de de résistance ah. ça du manquer tamit parce que bon d'abord la la santé la responsabilité sur la santé est d'abord une responsabilité individuelle. et c'est normal ah je pense que ñun agent de santé ñoo war a gën a communiquer. gën a adapté suñu communication bi cest que de temps en temps quand même on a des cas de refus euh, tout ce qui est campagne de prévention on a l'exemple la COVID-19 man moom euh, je di que pour la vaccination d'abord du lu bees depuis des années il a la vaccination et tout et y a benn paa rek moo ko doon wax on discutait de ça rek un ah. ancien paa la du du médecin dara c'est un ah. cultivateur mu ne moom lu mu lu mu lu mu daal bu mu nekkee jeune am na feebar bi mu gis si xale mais depuis ñu commencé ñàkk ko xale yi gisatul feebar yooyu c'est un exemple waaw c'est-à-dire que vaccin du sur bees et chaque fois qu'on dit des campagnes de prévention lépp loo xam ne aar la te d'habitude des campagnes yoo xam ne doo fay dara sont des médicaments gratuits sont des de mm -hmm. je pense que may soxal population bi rek mooy adhérer adhérer parce que fagaru moo mm-hmm. loo gis stratégie de prévention la nga adhérer moo gën am ngay doute vraiment tu peux poser la de santé vraiment ñu a leer la Mm-hmm. et ñun tamit peut-être que aussi ñu ngi koy def certes je crois que en termes de prévention il y a beaucoup de communication en mm-hmm. termes de prévention en termes de vaccination dans sa globalité mm-hmm. ñu gën yokk communication bi gën a dugg peut-être peut-être aussi gën a duglu population parce que am na xam ne sont des questions légitimes nit ki lu muy gis rek lay xalaat waaw lépp loo gis daal communication la mais mon message bu mu lancé mooy lépp loo xam ne campagne de sensibilisation la campagne de prévention moi j'incite à la à la population ay adhérer parce que fagaru moo gën faju mm-hmm. te feebar moom soo ko amee rek après yaa si parce que tey soo feebaree soo demee dans structure de soins y a moom la sa coût économique y a le nga feebar nga tëdd nga am dara donc prévention daal moo gën mm-hmm. te loolu moom je pense que on fait de notre pour sensibiliser la population, le plus prévention et campagne de discussion de masse aussi. Je crois que ce sont des choses qui sont importantes parce que c'est une campagne qui a fait ses preuves. Mm -hmm. Il y a des régions qui avaient des maladies endémiques, des districts actuellement ils n'ont plus ces maladies endémiques. Mhm. Donc euh, vraiment exhorter la population, nous accompagne si ces pour vraiment lutter contre toutes ces maladies tropicales négligées. Effet bi fi nekk la. Mhm. yoo xam ne négligé bi mooy ils sont négligés sur tous les plans. duñ ci wax bu baax dans les média population bi xam ko baax set xam na ko ni mais xamul na feebar lu bëri na ni Sénégal ainsi de suite comme feebar la yoo xam ne war nañ si gën a bàyyi xel waaw mm-hmm. comme mais quand même ay ngi fi ah, ñu ngi jéem parce que Sénégal am na euh, programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées boo xam ne docteur Ndeye Bakké Kane mooy coordinatrice bi vraiment te comité programme mu def ay liggéey bu am solo. Mhm. daf nañ mu def jéeg bu solo parce que am na journée de journée mondiale de des maladies tropicales am na campagne de communication sur les DMM ñu ngi def émission xool affaire yi. Mhm. mais à l'intérieur du pays vraiment euh, feebar yi daal MTN daal sur le plan institutionnel ya ñu def effort yu bëri. Mhm. la preuve man mii maa ngi fii fan mais maa ngi appuyer programme bi dans. dans la lutte contre ces maladies donc feebar loo ne de plus en plus mu ngi mu tant puisque même les y a même un congrès qui s'est tenu ici euh, au Gabon mhm. concernant les maladies infectieuses l'un des thèmes mm les maladies tropicales négligées parce que feebar yoo xam ne su demee Afrique centrale c'est très bien connu parce que mhm. y a une prévalence bu relativement élevée mhm. ah, donc en matière de prévention exhorter la population à vraiment adhérer savoir que tout un de la population et que vraiment du ñàkk nag ay manque de compréhension jusque s'approcher au niveau des structures de soins mm-hmm. pour demander des éclaircissements. Mm-hmm. Euh, pourquoi pas sax am ay relais ñoo xamante ne peut-être dañuy def euh, sensibilisation bi docteur Badiane euh, ñu daal di xuus ci gën a xuus ci waxtaan bi rek wax ci jàngoro bi nga xamante ne moom moo di rage rage dañ koy dégg rage mu mel ni jàngoro boo xamante ne si xaj lay jóge affaire yooyu tey bu ñuy wax rage lan la ñu mën a jàpp ci jàngoro boobu. waaw rage feebar bu doy waar la. mooy am naa mu tuddee si wolof say am na ñu ne ràmb. mais feebar bu doy waar ba mu say ba mu ne say dama ne waa say en fait j'ai entendu. mais feebar la boo xam ne xaj bu euh, animaux ñoo koy jox nit ñi c'est-à-dire que mala yi ñooy màtt jox ñu ko wala griffe nit yi jox ñu ko. xoos leen mooy xosi leen mais nag feew la boo xam ne lu si bëri xaj moo koy joxe mais day fekk xaj bi am feebar bi. Mhm. te xaj bi samay dañ ne day say. day say xaj bi samay moo tax mu ne peut-être wax say si mais am na ñu ne mais feebar la boo xam ne daal. ah say peut-être c'est le mhm. boo xam ne si mala lay jógee dem si nit. Mhm. lu si bëri bëri day fekk. comme on le voit parce que plus de quatre vingt quinze voire même cent pour cent des cas xaj moo mat nit wala moo xosi nit. moo am rage. parce que xaj bi su mat nit xosi ko da koy jox virus bi parce que xaj bi am na feebar bi. Mm-hmm. mais nit na nag su fekkee teel ñu ko jël en charge surtout vacciner ko teel ko vacciner teel nettoyer plaie bi virus bi mën na multiplier seera moo joxe rage te su. te feebar boo xam ne gis nañ ñun fii lépp luy parce que fii c'est centre au niveau de des Mélanes de Fann dañuy recevoir xale yi nit yi xaj matt. gis waaw gis na ñu si bëri bëri na xale yi tamit xaw nañ si sakkan tuuti. Ah xale yu recevoir. waaw mm-hmm. ah, ñun des fois on reçoit bu tamit beaucoup d' enfants. parce que waaw parce xale yu souvent. dañu ànd ak xaj di si mbedd yi des fois ñu tooñ xaj yi des mm-hmm. fois aussi xale yi tamit même kër sax soo yoree xaj sax xale yi xaj bi la ñuy gën a miin loolu lañ ko seetlu donc xale yi daal moom la gën a gën a gën mu gën a exposé mm-hmm. loolu soo gisee mu doyaa mais su la dalee rek mooy daanaka jeex na waaw parce que dañ ne moom fu may wax ak yónni à l'état actuel de la science la rage déclarée est mortelle cest que rage moom su amee moom daanaka jeex na. amul soo su rek da faat. Mhm. moo tax lu gën a am solo mooy prévention bi. Mhm. mun naa rappeler loolu suñu rage yi. d'accord rage yi mooy nit euh, nit xaj xajmaat le plus souvent nga jég saa mu changer comportement mu gën a agressif. Mhm. loo xam agressif. day excitable day mel ni ku gis dara parce day am ay hallucination des fois auditive wala mm-hmm. day mel nit ku xaaw a tàggoog sagoom surtout nit la koo xam ne soo ko tiimalee ndox a yëngu parce que dañ tuddee tuddee parce que dañ dafa am lu ñu tuddee hydrophobie hydrophobie des fois day accompagner suñu rage bi nit ki day am ay contraction si mm-hmm. muscle yi baat bi pote bi comme su gisee xam nga ndox moom soo gis fay naan xam sa yow ndax day contracté di sa antis boobu su gisee kii rek ndox bi rek da fekk day déclenché wu muscle bâti parce que mm-hmm. le patient est hyper excitable mm-hmm. muscle bâti commencé contracture du métti mm-hmm. aggravé signes yi waaw loolu benn si moom mais daanaka daal day mel nit ku xaw a taggoog nit ku agité du yuuxu fii day day yuuxu rek day yuuxu fii parce que am nay spasme musculaire mais aussi am nay hallucination des fois tamit digg wàññeeku dégg-dégg te say day wàññeeku ah, ça veut dire que nit bu hyper excitable ñu tuddee forme furieuse nga foog daal des fois sax à la limite dañ koy takk sax waaw mm-hmm. dañ tuddee day mel ni soo xamee xaj buy saj rek à peu près la c'est la même chose quoi mm-hmm. suñ gisee signe yooyu moom daanaka moom jeex na moom parce que feebar moom su déclaré woo moom jeex na mais lu gën am solo nag mooy actuellement lu mu ko waxee keroog rek benn carage sax mu tax ma bu ma kaay mm-hmm. benn cas c'est dramatique parce que la boo xam ne c'est mortel à 100% mais aussi c'est évitable à 100% et moo tax wax ci rage lu gën a am solo may wax si mesure de prévention. Mhm. docteur balaa ñuy dugg ci mesure de prévention yi nga gënuñu xuusal rek ci signe yi. Mm. parce que wax nga ne peut-être dafay hyper euh, excité dafay agressif mais peut-être loolu euh, xam naa mooy bu yegg ci yenn phase yi en dehors de le fait que nit ki agressif trop trop trop yan symptômes la ñu mën a déceler et pour ne peut-être kii xaj da ko mat. essentiellement son même symptôme parce que tout au début peut que nit ki mën naa ne xaj fu mu ko matoon noonu lay commencé day xasan day waxatu après mm-hmm. mais gravement sont les signes quoi xam nga des fois aussi ñu wax ni se gravement ah. mm-hmm. gën a ràññee mm-hmm. parce yoo xam ne c'est beaucoup plus médicaux c'est beaucoup plus technique mais de manière globale sont ko mooy nit ko am xaj daf ko mat mu changer caractère en résumé nit ko xaj màtt mu changer caractère na ñëw daanaka mun nañ jàpp ne rage mais na ñëw hôpital quand même ñu xool mais nit ku nit màtt mu changer caractère rek dans un délai de quarante cinq jours en moyenne dans dans un délai de un mois en moyenne nit matt ko mu changé caractère xaj moo ko mattoon vacciné wu deful dara mu changé caractère rek. mën mhm. nañu jàpp ni rage la. Mhm. waaw euh, tey eh, wax nga ci rage euh, lan moo koy joxe lan quelles sont les causes. boo xam ne virus la te mu la wax rek c'est maladi une maladie zoonotique zoonose la maladie la boo xam ne si mala lay nekk. Mhm. tey si bëri bëri. Euh, mala ñu gën a ràññee mooy xaj yi mais aussi certains animaux sauvages comme euh, ñu tuddee xam euh, ñu waxee nag kii si français lu tuddee renard xam ñu koy waxee si olof nag waaw waaw mooy taxaw nu xaj nekk si àll bi mm-hmm. yooyu la globalement mais xaj moo si gën a ràññee te mu mm-hmm. gën a poser problème de santé publique mm-hmm. mais soo demee en Amérique du Sud ñoom njugub moo leen koy jox njugub mu doon l'âge dû aux chauves-souris boobu Amérique du Sud la mais globalement mala boo xam ne si mala lay nekk mais accidentellement day dugg si nit ki. Mm-hmm. surtout soo par exemple xaj mooy malade euh, virus bi mu ngi si mala bi. moo mm-hmm. mat nit jox Mhm. wala mu xos nit jox ko. Mhm. waaw noonu lay noonu noonu noonu fa lay jógee mais mhm. virus moo koy joxe. d'accord docteur mu mel ni wax nga ko euh, ci seen consultation yi fii bëri na ay xale yoo xamante ne dañuy ñëw te cause consultation bi moom mooy que ne eh, xaj moo leen màtt mais apparemment euh, bu weccoo bu weesoo bëccëg bi ñu koy màggal nit yi eh, dinañ wax rage nii rek rage rage mais est-ce que les gens son conscients euh, que feebar bi mu ngi fi. oui oui ça ça ça dépend déjà moi je me dis que le fait que xajmat la ñoo consulter rek déjà c'est une bonne chose. Mm-hmm. c'est une bonne chose quoi parce que gars yi am nañu notion. que insister rek sur la sensibilisation. Mm-hmm. man dama même avant même la morsure je crois que déjà il faut que ñu insister sur la sensibilisation. surtout envers les enfants. Mm-hmm. d'une part xale yi d'habitude amuñ seen manière seen suñuy foofu seen mhm. activité ludique mhm. dañuy romb xaj toj ko romb xaj këddu ko et tout ça wala romb xaj bu ne nemm sax foofu ko ko mhm. wala soo gisee wala ñu gis xaj bu agressif ñu koy tooñ je crois que il faut ñu soññ xale yi aussi bañ a parce que sont des plus souvent sont des yoo xam ne amuñu borom mbedd bi waaw xale daal dañu moytu xaj yooyu parce que amuñu benn intérêt interagir ak ñoom léegi nag su fekkee nag parce que xale tamit bëgg bëggam mun na am fekkee xale bu bëgg mm-hmm. animaux domestiques la ñu ngi koy xaj boobu une fois la maison mooy mooy les chiens domestiques mm-hmm. les chiens domestiques aussi on vacciner parce que chien domestique dafa laaj entretien mm-hmm. concernant la rage on doit vacciner de manière annuelle comme su fekkee yéen kër nga am benn xaj boo leen di foofu euh, ngeen ngi koy ñaq de manière périodique et soo leen xaj bi tamit parce que da ngeen décision yor benn mala comportement xaw na changé rek nga jël yóbbu ko si vétérinaire mu saytu ko waaw mhm. ah, déjà foofu tamit dina euh, dina éviter sax ñuy recevoir des des cas de des de morsure waaw mhm. ah, mais je crois que globalement quand même on voit on reçoit quand même des patients été mordus par des chiens mais nag mhm. comme je le souvent lu ñu gis rek lañ mun wax. Mm-hmm. mais xamuñu ce qui se passe dans la communauté donc sensibilisation du mos a doy. Mm-hmm. peut am ñoo xaj da leen maatuñu toog seen kër. peut-être xaj bi leen maat amuloon rage ñoom dara jàpp leen dañuy jàpp ne matum xaj du dara waaw mais c'est waaw mm-hmm. moo tax euh, sensibilisation du mos a doy mm-hmm. moi je pense que euh, il faut que ñu continuer di gën a sensibiliser sur la rage parce que feebar bu doy waar la mm-hmm. euh, docteur Badiane sànq xaj yi ci xaj yi ñu koy gën a gis mooy xaj yi nga xamante ne dañuy nekk ci ci ci ci mbedd yi peut-être les chiens errants tey eh, waa yaa ngi wax depuis tout à l'heure sensibilisation ak prévention xam naa nag mu mel ni vétérinaire am nañ ci rôle buñ ci wax a def ba xam di ngeen leen di dina leen di farataal di dal ngeen di liggéey ak peut-être les gens de waa service d'hygiène pour certainement def ay ronde autour des quartiers pour ramasser pour dajale yenn xaj yi defal leen ay vaccination comment est-ce que ça se passe moi je pense que loolu soo jëlee thème ren bi sax ah thème journée mondiale de la rage bi mm-hmm. c'est une seule santé zéro mort une seule mm-hmm. parce que cette notion cette notion d'une seule santé ñu koy tuddee en anglais one health notion loo xam ne de plus en plus dañ ko dañ ko adopté dans beaucoup de programmes de lutte la muy une seule santé gis nañu feebar yemul kese si nit. Mm-hmm. kon xeer feebar si nit nekkul la nga yem si santé humaine. comme lépp de plus en plus feebar boo gis il faut ñu liggéey en conseil il faut que xeex bi ñun santé humaine ñu xeex si vétérinaire yi xeex même secteur de mm-hmm. l'environnement xeex. et rage c'est exemple bu gën a parfait en termes de approche une seule santé c'est mm-hmm. aujourd'hui à tous les niveaux mënuñu lutter rage mënuñu traiter rage sans l'impact des vétérinaires exemple bu may doon actuellement on ñu ñu finalise ñu ñu finalise ñu plan d'élimination plan de surveillance intégrée de la rage. Mm-hmm. plan la boo xam ne dañu toog ak vétérinaires yi ak secteur de l'environnement ak le service national d'hygiène. service national d'hygiène boo leen fàtte day fàtte dañuy ñàkk. dañ def de la prévention dans le parce que ñoom tamit ils reçoivent des cas de morsure les parcs forestiers aussi parce que y a les animaux sauvages ñëpp dañu toog xool lu ñu gën a mun a surveiller xeex rage bi déjà soo jëlee pare nañu même xëccu la maatee sax te su fekkee xaj bi am na propriété dañ ko jox benn certificat boo xam ne da koy yóbbu si vétérinaire mu. observe propriétaire waaw dañ dem waaw dañuy dem. ñu ñu ñu ñu ñu ko xool la amul rax mooy dañ koy mettre en observation xool mhm. après vétérinaire moom a xam-xamam moo leen ne xaj bi gëm naa ne am na rage wala amul rage léegi nag concernant les chiens errants je crois que on travaille parce que ñun ñooy déclarer les cas de mais aussi am na surveillance rage animale la rage humaine ñu ngi koy surveiller chez les humains mais aussi am na surveillance la rage les animaux mhm. notamment chez les chiens je crois que ces vétérinaires ñu seef liggéey bu am solo mhm. la cartographie prévalençage animal selon les les régions. et en fonction de ñu ngi dem seen i mesures. cest ñu dire tamit mën nañ leen interpeller suñu gisee ni am na ay cas de morsure récurrent wala am nañu ay cas de rage récurrent mais ñoom tamit am nañ seen système de surveillance mais lépp loo gis am na cette notion vraiment de multisectoralité mooy dañuy liggéey ensemble ñoom tamit suñu gisee cas yi dañuy informer y a tellement am na foyer bu ëpp fii mm-hmm. mais suñu gisee cas de morsure dañ et ñoom ils ont euh, comme c'est la santé animale. Mm -hmm. tout ce qui est gestion des populations de chiens ñu ngi def jéego yu am solo. le vétérinaire vétérinaire yi ñu ngi mhm. def surtout si vaccination chien yi. Mhm. parce que suñu vacciner chien yi correctement on peut on peut on peut dire qu'on qu peut éliminer la rage chez l'homme mm -hmm. parce que si si si la rage est maîtrisée chez les animaux notamment les chiens. Mm-hmm. même xaju la maté de la transmettre rage. Mm-hmm. Ah, donc euh, il faudrait qu'on mette l'accent sur les vaccinations. waaw ouais, sur les vaccinations oui. <laughs> docteur wax ci traitement sànq yaa ngi koy wax euh, peut-être ku euh, maladie mortelle tey le traitement euh, repose sur quoi. moo koy en tant que médecin. Mm-hmm. au moment intersexe traitement d'âge parce qu'il a pas de traitement. d'accord la reste déclarée solo kay mooy balaa ñuy àgg foofu. Mhm. fagaru mu gën faj loolu c'est un message très important. Mhm. c'est bien ñu wax feew nii la mel nii la kii mais man bu solo pour chaque maladie ñu xam lan mooy tax ñu fagaru si mooy prévention. Mhm. rage moom lépp toutes les tous les efforts lépp suñu effort yi dañu ko doon concentrer si prévention bi. éviter malade bi am. parce que traitement bi c'est une zoonose cest à que cela arrivé ba jusqu'à l'état de la science c'est presque fini. Mm-hmm. hospitalisation mettre quelque part rek la. dañ quelque part teg foofu jéem a retardé l'échéance de ce que je dirais mais lu am solo. Mm-hmm. lu am lu am solo mooy éviter am parce que objectif bi c'est pas d'ici deux mille trente l'objectif de l'OMS c'est zéro cas de décès à la rage. Mm-hmm. d'ici deux donc ne diagnostic naa du ndaw lu am solo mooy prévention bi. Mhm. prévention mooy xale boobu wala mag bi def rage lu tax mu def ko lan lañ waroon def mu bañ ko am solo. Mhm. te moo rage même suñ koy jàngale sax on dañuy insister trop sur prévention bi. Mhm. parce que traitement bi est malade proprement dit une fois le diagnostic posé il y a plus rien amatul dellu ginnaaw. a loolu c'est la lâche déclarée est mortelle. loolu moom crois que c'est un message qui est important mm-hmm. moo tax ñu insister sur la prévention mm-hmm. et prévention de la rage yoo nga ko sànq mm-hmm. monde animal la santé humaine la santé animale c'est essentiellement vaccination des chiens il faut que ñuy vacciner les chiens de manière régulière santé humaine d'une part il faut que surtout avec les chiens errants ak suñu xale ñu bañ ñu am des cas de monstre parce que xaj bi su la màttee doo ko retrouver doo ko mun isoler doo xam propriétaire bi c'est sûr que xaj bi il si mm-hmm. place publique la wala niveau des zones comme la mer ñu dem provoquer wala un un chien agressif dans la communauté mm-hmm. en tout cas il faut ñu sensibiliser xale yi bañ a tooñ xaj yi man dama dama tooñ xale bu ñëw pour moom laa ñëw noo dafa xaj bi màtt la mm-hmm. day noppi da koo sànni xeer. dama ko sànni xeer wala sama xarit ñoo ko sànni xeer bu mhm. exemple parce ñoom ñooy agressé chien. d'autre mhm. part mais devant un cas de morsure de chien xale yi d' abord je m'adresse aux enfants ñu sensibiliser leen. Mhm. xaj na ma nañu ko nañu ko doon wax seen i parents. c' est important parce que xale bi xaj mën naa ko màttu mu naax ko nga laaj ko mu ne dama gaañ. dama faxastalu c' important dama faxastalu déjà il faut ñu sensibiliser xale ñu bañ a moytu xaj xaj tamit su leen man ñu wax seen parents ah yaay pap xaj daf ma màtt. loolu ñu si parents yi soñ si xale deuxièmement suñu amee écho que xaj màgg na benn xale xale boobu il faut mu dem automatiquement hôpital Sidibé sans délai. de manière spontanée. spontanée sans délai pourquoi parce que euh, cette personne est exposée à l'arrache par une morsure. Mm-hmm. am na mesures yu mun jël. je dis que c'est une évite euh, euh, mortelle à cent pour cent mais aussi évitable à cent pour cent. première chose suñu hôpital dañuy raxas dañuy fomp plaie bi. Mhm. même à domicile sax yaa ngi mën a jël saabu ak ndox fomp plaie bi mais loolu sax lu ngeen am mu ñëw hôpital. ñu nettoyer plaie bi va vite euh, va la plaie nettoyer plaie bu mu set. et automatiquement on doit a le vaccin antirabique à l'enfant mm patient mhm. automatiquement sans délai mhm. c'est la meilleure chose à faire amul xaj daf ko man tey il est vingt trois heures ah lii grawul naa bàyyi ba suba di fajar naa bàyyi ba suba il faut la vaccination c'est tellement urgent je vais donner deux exemples yoo xam ne je prends l'exemple de notre service les maladies infectieuses heure boo fi mënta ñëw même si c'est à cinq heures du matin tu as accès au vaccin. toutes les tout tout tout le personnel est aguerri à ça ont te vaccine. Mm. on nettoie la plaine. si tu dans les autres régions. Il y a une note qui a été émise par le ministère via la direction de la lutte contre la maladie et le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées am boo xam ne dañuy insulte dans toutes les régions que le vaccin soit même disponible dans les postes de santé. Mm -hmm. moi j'ai fait des missions gis na j'ai vu j'ai mm-hmm. si c'est deux doses wala trois doses. am na fa loolu yëpp pour wan ni l'impact de l'urgence de cette maladie. Mm-hmm. soo ñu automatiquement dañ automatiquement dañ lay vacciner mm-hmm. et loolu moom je crois que loolu moo gën a am solo. Mm-hmm. d'autre part aussi am na ñoo xam ne dañuy liggéey secteur animal comme vétérinaire yi ñuy dresser xaj yi ñoom ñoom d'emblée ils se vaccinent. ñuy dresser les les chiens ñu képp ku am contact ak animal de manière récurrente. ñoom dañuy vacciner wu d'emblée. Mm-hmm. avant même d'être d'être d'être mort. ñu mm-hmm. tuddee les personnels les les la population à risque le personnel à risque. je crois que loolu daal moom solo. fu mu toll le principal message mooy. à l'endroit de la population vraiment xale yi ñu gën leen ñaax si moytu avec les chiens errants mais d'autre part aussi en cas de morsure daw hôpital. Mm-hmm. justement docteur en cas de bu fekkente par exemple euh, daf ñu yéex a au niveau des districts sanitaires ndax loolu dafay gën a virulence bi. en tout cas en cas de morsure chaque minute qui passe s'il y a le virus le virus se multiplie. d'accord. maintenant nag am na seuil bu muy atteindre nag day commencer envers système bi. Mm-hmm. mais quelque soit fa heure boo mënti ñëw au niveau du statut sanitaire c'est-à-dire que c'est une urgence même su ñu nee urgence prophylactique c'est une urgence de prévention. Mm-hmm. urgence amul tey si nee si urgence urgence. c'est urgent que y a plus de. le mot mm-hmm. si tu viens. en tout cas si tu viens au niveau des structures de soins que tu dis que ils vont te vacciner de telle sorte prions que c'est pas trop tard. Mm-hmm. parce que si le est assez fort bu commencer envahir cerveau bi là ça devient maladie la vaccination ne sert plus à rien. Mm-hmm. pourquoi j'insiste encore sur l'urgence. Mm-hmm. waaw Mm-hmm. d'accord ñu amaloon euh, bëccëg bu ñu jagleel xam naa xeex euh, lii di rage euh, le vingt-huit septembre bi ñu génn wax nga ko tout à l'heure seen thème bi porté woon ci une seule santé zéro mort lan moo leen poussé woon ngeen ngeen def choix de thème bi ni mel parce que xam naa ne thème yi du ñàkk pourquoi ce choix pourquoi ce choix c'est la rage une seule santé zéro mort. Mm-hmm. déjà gis nañu depuis avec la pandémie à Covid. Mm-hmm. on faisait on centrait beaucoup plus la à la Covid. donc toutes les dynamiques de prévention de lutte programmatique c'était un peu ralenti. Mm-hmm. donc c'était vraiment qu'on reprenne parce que sur le plan mondial il y a beaucoup d'avancées sur la rage mais y avait une certaine perte de vitesse liée à la pandémie à Covid-19. Euh, une seule santé comme je l'ai dit de plus en plus. de comme baal ma de maa ngi dugg si français bi. on rage mu waxee rek d'ici d'ici depuis deux ans. Mhm. gis nañu ak Covid bi lépp luy xeexu rage dafa commencé woon ralentir un peu. parce que crise sanitaire la woon. donc mu doon thème bi dañ ko relance quoi ñu tuddee ko la rage. une seule santé mooy gis nañu feebar la boo xam ni c'est pas seulement si nit ki mais aussi. mu am na si mala yi. moo tax suñu mënuñ tuddee approche une seule santé mooy benn wér yaram mooy sooy faj wér-gu-yaram danga koy faj dans sa globalité cest à xeex bi du xeex kese si nit ñi danga koy xeex au des animaux si mala yi danga koy xeex aussi si environnement bi. mu tuddee approche une seule santé tey jii su may xeex rage damay xool lu may xeexee rage si santé humaine mooy si nit ñi lu may xeexee rage si animaux yi zéro mort mooy fu mu toll nii nañu fixé wu objectif d'ici deux mille temps avoir zéro décès lié à la rage mooy bu ñu amati nit ku dee ci feebaru rage parce que c'est maladie boo xam ne mën nañ ko moytu à cent pour cent mm-hmm. loolu moo motiver thème bi mm-hmm. pour rappeler nit ñi que il faut ñu insister sur la prévention mm-hmm. parce que si on dit zéro mort wala voilà, zéro décès lié à la rage mooy bu ñu dee ci rage ça revient à zéro cas de rage. parce que mhm. rage soo ko amee gisaguma ko am rage dund wax dëgg fa yàlla. Mhm. waaw mhm. ko nag amul. gisaguma ko. donc il faut que xeex feebar bi. xeex feebar bi nag c'est c'est l'occasion rappeler population bi. l'importance de la sensibilisation si moo tax la dernière fois ñu convié journalistes si ci benn session de renforcement de capacité gën leen expliquer luy rage. Mm-hmm. mooy il trois deux jours au niveau du SNEPS. Mm-hmm. dañu invité un journaliste mais aussi les téléconseils mooy ñu nekk au niveau de du numéro vert du SNEPS. Mm-hmm. ah dañu leen renforcer si feebar mel ni rage pour ñu nekk. suñu relais. Mhm. envers la population. Mhm. xam ne rage la fer bu nekk fii la il faut ñu xeex ko. Mhm. il faut ñu si wax il faut gars yi si bàyyi eh, eh, de prévalence de combien. en tout cas rage c'est vrai que de manière globale. parce que ici quand même mooy suñu centre de référence maladie infectieuse. gis nañu wàññeeku na quand même ba léegi mu ngi fi. ren rek am nañu deux à am nañu trois cas de rage. ñu détecté ici au Sénégal. Mhm. ren service des maladies infectieuses. Mhm. Euh, euh, pas plus tard semaine passée dans une région on m'a signalé un cas. Mhm. Euh, parce que c'est une maladie qui est sous surveillance tamit c'est-à-dire que comme comme cas de rage dañ ko war a notifier dañ ko war a notifier de santé daf ko notifier mais man lu may wax rek benn cas sa man baaxul cest dire que man dama ne cent cas benn cas laa boole yam benn cas rek waruñu parce que su ñu zéro décès lié à la rage parce que soo nee am na cent cas am naa trois nga ne ah trois cas c'est pas grave. nga minimiser ko. man bëgguñu bëgguñu minimiser feebar parce que feebar la boo xam ne c'est très dramatique. même ñun agent de santé nga def nit boo xam ne am na kii looloo ko dara. Mm-hmm. ngay jéem xool fii dafa da ngay jéem sa yeneen traitement nga xool xam ne kii feebar bi moo ko jàpp mënuloo ko dara loolu dafa métti sa agent. waaw waaw feebar la fa métti ba yaa ngi gis mu la nga ne kii waxtoom lay xaar. moo tax man message bu bëgg a lancer parce que objectif bi dañ ne zéro décès. Mhm. lié à la rage. te waruñu dañu war a am zéro cas de comme compter kaay suñu compter benn rek mooy nga compter sax. Mhm. te des fois aussi lu ñuy compter muy feebar malade ñu hôpital. surtout ça. xamuñu malade bi ñu nekk si si ñu hôpital mooy yi ñu officiellement moom la ñu déclaré. parce que nit feebar boo xam ne. gis nañu fi ay maladies yu souvent ñu jàpp ni feebaru xel la. tout à fait moom peut-être am na si communauté bi. Mm-hmm. waaw et c'est l'occasion soo koy wax ni nga siy sensibiliser. nit sa ils vont commencer t'approcher ah man amoon naa benn mbokk gëm xalaatoon naa ni feebar da ngeen waxtaan si. Mm-hmm. mais ñu suñu amee benn cas actuellement baaxul mooy dañu war a def suñu kéemtalaay kattan. no néew nañu am fam am nañ trois cas notifié deux cas notifié non c' est bon non c' pas bon sama mm-hmm. xalaat bu gàtt mooy objectif bu ñu fixé wu c' est zéro cas mm-hmm. il faut ñu atteindre ko. Mm-hmm. comme benn cas baax kon su ñu amee benn cas il faut ñu gën a renforcer gën a xoolaat suñu taxawaay gën a ñaaxaat population bi en terme de lutte contre la rage. Mm. docteur dogu sax wax nga ko mun nañu xaj mun nañ la màcc sax nga foog ne peut-être a yeneen feebar la parce que ñun euh, ci ñun ñu yaree ak suñu éducation et truc am na yoo xamante ne lu la dal rek da ngay foog ne peut-être ay yëfu seytaane la entre autres. waaw waaw waaw xam nga nous sommes Afrique lañ nekk. am nañu suñu am nañ suñu réalité. Euh, xam naa lu gën moom nit moom lu mu gëm croyance mu mhm. munoo mu ko génnee. Mhm. mais am na solo tamit nit su feebaree ñu andi ko hôpital. je am na am na am na solo trop suñu hôpital tamit nga wax lépp lu daal feebar bi. Mhm. surtout su fekkee su fekkee say mag la des fois man ci day fàtte sax que xaj maat na ko. waaw sensibilisation mooy en tant que médecin li mu mun lancer appel mu mun lancer mooy ku feebar ak ak mu am. ñu demoon ñu la. au niveau des structures de soins. nit ñi am ni peut-être que des fois dañ jàpp ne sa feebar xet du loolu. na nekk ay infection ay méningite ay infection cérébrale ba yeneen xeetu feebar yoo xam ne am na traitement boo xam ne suñ ko traité rek nit ki dina wër. Mm-hmm. waaw mooy que nit daal su feebaree daal lu ma xam daal damay consulter. Mm-hmm. dans une structure sanitaire. Mm-hmm. waaw message boobu daal laa mun a mun a lancer. que euh, mun a nekk rare mun a nekk autre chose. na nekk ah feebar daal bëri na daal. Mhm. mais loom solo mooy bañ def errant diagnostic dem consulter ñoo xam ne dañ lay jox yeneen type de médecine boo xam ne day tardel sa prise en charge. Mhm. waaw loolu daal xam naa lu ñu war a lu war a gën ñu war a gën a moytu la des fois dañuy dem xool yeneen type de médecine yoo xam ne des fois ça prend du temps mhm. et des fois heure bu ñëw hôpital. des fois même c'est trop tard. c'est un stade tardif. Mhm. des fois même c'est trop tard mais peut-être patient bi moom euh, xelam fu mu ko may rek pour nga am ku lay aussi ba keroog ñuy gis. ce traitement na poser problème. oui mhm. oui oui comme je l'ai mooy croyant moo tax appel que si tu maladie quelconque ah et l'habitude de te euh, nga jege bërëb fajukaay. Mhm. message boobu mun a lancer. parce jege bërëb fajukaay xam naa foofu ndam ku lay orienté. ak lu mu doon dina xool. su ko su ko dépassé mu jébal la keneen koo xam ne xelam gën na si màcc. Mm-hmm. un spécialiste wala mooy mooy xool wala le médecin chef mooy xool daal. Mm-hmm. mais d' abord il faut nga dugg en contact avec le système de soins parce que d' abord ku ñu orienté mooy ku dem gis système de soins bi. Mm-hmm. cest à mooy ku dem nekk en contact avec le système de soins je pense que maintenant même. pour cela am na politique yu bëri yoo xam ne ni ko développé au Sénégal avec les relais communautaires même yoo xam ne sax ils se déplacent dans les maisons ils mhm. peuvent même servir de relais mais en tout cas devant toute maladie vraiment il faut lu la jaaxal laa si wérgu yaram mhm. il faut nga am contact avec un agent de santé mhm. waaw je crois que loolu am na solo trop euh, docteur Aboubacry ba Badiane mu mel ni nag euh, waxtaan bi am na solo mais on est un tout petit peu rattrapé par le temps euh, li ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ci waaw maa ngi maa ngi lay remercier je crois que si lii euh, euh, c'était un prétexte avec la journée mondiale de la rage mm-hmm. fàttali feebar bi la man daal euh, déjà wax ni rage malaat tropicale négligée la je crois que jot nañ si waxtaan tuuti mm-hmm. ay feebar yu fi nekk la yoo xam ne ñu ngi ciy ñu ngi koy jéem a éliminer au au Sénégal te journée rage tamit bokk si maladie tropicale négligée nekk feebar bu xaw a doy waar boo xam ne message bu ma population mooy feebar la boo xam ne mun nañ ko moytu te ku si na nit yi gën a moytu chien errant eh, yi. daaw d'une part xaj yi xaj yi nekk si si mbedd bi gars yi gën leen moytu dañoo bëri wëy e je crois que des efforts sont en train d'être faits pour maîtriser leen ah mhm. je crois que sur sa plan moom ministère de l'élevage ñu def ay jéego yu am solo mhm. mais d'autre part aussi xaj su la maatee nga daw lu sa mënul ñàkk que xaj bi sa des fois sax mooy nga ko romb ko dee rek mu song la mhm. mun na am ay chien agressif agressif méchant way mais xaj su la daal dawal ñëw hôpital pour ñu def le plus fort surtout nettoyer plaie bi ak ñàkku la. Mm-hmm. naa loolu suñ ko defee yaakaar naa ne mënuñ atteindre objectif objectif mooy d'ici deux temps ñu mën am décès mm-hmm. contre la rage. Mm-hmm. te suñ ko defee macha allah je crois que suñu àndee ñëpp parce xeex la boo xam ne du personnel de santé bi kese déjà ñun santé animale santé humaine environnement ñu fi jëf ñu def jéego mais surtout il faut population bi accompagner bi si xeex bi parce que bénéfice ñoom lay dellu. suñu amatulee rage Sénégal moom gis le plus grand bénéfice c'est la communauté muy ñun parce que ñun tamit si communauté bi lañ bokk. Mhm. donc il faut que tous les parties prenantes jàpp si les porteurs de voix comme vous les journalistes. déjà le fait ñu siy waxtaan peut-être que ça c'est une occasion davantage ñu sensibiliser population bi mmh. mais aussi population en elle-même ñu gën ñu jàppale si xeex bi xeex mooy faible rage mmh. mooy si xeex ak maladie tropicale négligée yi merci euh, merci beaucoup à toi également moo fàttali ne SOS eh, santé nag tey suñu gan moom moo nekkoon docteur Aboubacry Sadikh Badiane mu nekk médecin au service des maladies infectieuses ci hôpital bu Fann Fatou Baba Fall moo nekkoon bi Bachir si nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité